jalu ma bi des yàllal yow yàlla jox barke soxna bu defan suq ak cuune du ñu wan ki ñuulu dogle bes ko ñu mosula julli te jàppul mosula julli te wildul loola kay sangam tuubal daal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxna te njaayi mbokkam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 yéene waral kerek dooram moo tax ab julit war nay jëf te boole koog yéene loola mooy ngir dee leen jëf te boole koog yéene muy doo jóg ak karaam di soo leenam kaw soo la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan sa kaw ak leera moo taxoon musul leenam lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rànkee ngeniil ndax ngoolaa mu teewal saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doon dem waar sànq doon demal banu fi soxna Saadu ak waar soxna Jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba sunu maam ji yor borom ngeniil li te fii ñul jafe cib jaam ma fee dox di waxtaani soxna Jaara mos di a jóg di seetaan mos ba ñettaani moo taraxal saytaani mos a dox caag raw sax day leen ta jig maasam ceera baa di waxtaanam lool moo di ban xaasam soxna jaara moo ba mi njiij mu naa wal wal dégg too bi kenn ku mar mbaa ku gàntu day bañ a wal waaye wal mi dem na fu ne nga ndi ceeba day gën na leen ña nangoog ña gansu du tee fépp fépp la yi dara leen ku yabu teex ku yabu bañ bàq baa ngi kenn cëréwul ñi gëm dañuy teex ndax nga ndi ceebu fawu mu wal jeeg ngeen wolof new daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel bamba moo di ceeba mi tax daay di tàkk bàyyi kuréel dogan ceeba daay di di sax bay jëfal di bàyyi kuréel kuréel doon te mooy ñey ñax di tàkk def ko kuréel ñax gën càll ba sax gaay du tàkk dem ko kuréel kuréel amoon ba ti xol joo ne maa di kuréel kuréel xam na mu doon kon mu yuux naa wererer waaye xam-xam jafe na ndax wala bëtam dafa jër soxna jaara mi war naa tax jigéen dafa xaadam moom ki nangu woon xaadam te si gël na kër maaram soxna jaara mi war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel si dee mu di yaaram soo i mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox jigéen mu di di yaaram sama jaaree mi li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daanu dolli pay li kuy jëf keer ba mu teeloon maa moor ba fanaane caat tawte moo di sàkketi weñ yi war na kànkaar saate turux yam defal maa moor moo waral tabax jiital ak ba tan bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tuuba tooyam defal maamoor moo wal te ba giital ak ba tan bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tey njàppam laa waran jàngaay leeg bu sëriñ xeeñoo foofu soxlaal wa ta muy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maamoor moo waral kabe suukar kooku ya di sun kaas yi nguur daa mu puutar njalla mu daa jox ma moor mooral mu rii sow xëy doo baabal soxna jaara moo jaar dew fal bu ciyeen doo baabal bu ñeenu fa boole suukar ak soxna saa yor wal ga mu daawal moo tax daal yëpp naa kunkang boole kunkang ak kàndang bu njëlee ñu naa biñ bañ gaa waral mboolem daal iiru joxul joxi soxna jaara moo mën wal ñëpp a ngi waawaaw jéggi daaroo ngi faliru luxluxi soxna jaara mu am xew ñëpp a ngi fan naa fa naxi soxna jaara soxna yaa ngi monjono ñax na ñaxi bu sa baali moo ayet tey ñëpp a ngi jammax jammaxi keroom daa daw moo tax tur saxaar gi naa rëg rëg barab bi barab bu am solo ni ko waxee ndax eh, liggéey soxna jaara ndax eh, dafa da doon liggéey fii ba fi ñëwee maam liggéey bu fi doon liggéey lépp daa bokk ci mandarga yi nga xam ne ci doon mu doon jëfandikoo ngir liggéeyal euh, sëñ Mamour Anta Sall ci bii ci da cee bokk ndax euh, ndox mooy laabal nit tey it lu lu mu fonkoon la teen bi lu mu fonkoon la ndax teen yee bëri woon na bii la gënoon tàmm ndax njëriñ li ci ne xëy na moom ni mu ko xamee woon ni mu ko xamee ak ni ni muy jëriñee nit ñi ñi fi nekkoon xamuñu ko noonu waaye nag ba tax mu dimbali ci jaam yi ba ba gindi indi indi indi fi teen bu mel nii. ñëpp di ci saafarawu ku ñëw fi boo amul ndox sax da nga yaakaar demoo Porokhane waaw loolu moom liggéey soxna jaara tey barke rek moo ci am solo ndax lépp lu mu def da koy liggéey da koy jaayante di ci liggéeyal sëriñam ba yàlla may ko lii mu may lim ko may ni ci teen bi waaw mu teen bu am barke nag. xam nga ndox mi barke da cee wàcc te it maanaam maanaam ñëpp yaakaar rek yàlla da ci tàbbal barke ndax yaakaar ji daf ci ëpp ndax ku ñëw boo amul boo amul ndox rek da nga yaakaar ne yóbbuwoo dara. waaw waaw te it euh, ndox mi li muy faj dafa bëri ndax ñu koy jël di ko di ko def saafara di ko def seen seen seen jëfandikookaay boo xam ne moo seen moo leen di aar ci lépp maanaam dafa bëri waaw ndax euh, kenn ku nekk loolu rek nga koy def ndax boo demee ndox mi ak du ko yemale meneen ndox boo amee saafara sax bi ngay gën a gëm ci ne saafara te waaw day faj lépp ndax lépp loo xam ne maanaam jógee na fi rek ci ndox mi rek maanaam barke da ciy tàbbi te lu bari kitaab bi nag ak ñaanu soxna jaara ngi ci te it ñaanam da cee wàcc kon kon kon ñaanu soxna jaara mi nga xam ne yàlla gërëm na ko borom këram gërëm ko moom gërëmal yàlla kon kon kon kon loolu day do rek doy na saafara ba ñëpp ba ko ñëpp xamee nag di ko di ko di ko jëfandiku kon dañ ci doole sant yàlla bu baax a baax gën ko saytu. moo ànd ak liggéey bi nag ndax ku ñëw boo indaalul biteel limite am nga am nga am nga bëgg-bëgg yëg-yëg yóbbuwaale ndox te ñii buñ la jaayut biteel amoo foo ko defit fii fii amul defukaay ndax ñoom dañ cee bokk ndax loolu mooy seen liggéey te ñoom ñi ñi ci gis seen bopp ndax soxna jaara moo yaatoo noonu kenn ku nekk loo jëf xuró sax am na ñu fa ne di wax leneen ni tey ci soxna jaara lañ ko jaara ndax loo jaar loo soxna jaara ñu gëm ko rawatina bi nga xamee ne dañuy jaay biteel yi nga xam ne moom lañ war ni ñu war a jëfandikoo ndax am na ñoo xam ne ni seen xel dañuy dajale biteel sax seen kër war ko indi sax dañ koy fàtte bu ñëwee fii dañuy dégg xam ne nag ndox mi moom mënut ñàkk fa ñu fa ñu biteel yóbbaale waaw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 yéene waral kerek dooram moo taxat julit war nay jëf te boole koog yéene loola mooy njër ma dee leen jëf te boole koog yéene muy doo jëkk a karaam ni soo kaay leenam kaw soo la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan ta kaw ak leera moo taxoon musul leenam lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rànkee ngëneel nga ngoola almati alal saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doom demaa waar tànk doom demal banu fi soxna saadu ak waar soxna jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba sunu maam ji yor borom ngëneel li te fii ñun jafe na cib jaam ma fay dox di waxtaani soxna jaara mos la dox di a jóg di seetaan mos wax ba ñettaani moo taraxal saytaani mos a dox caag raw sax day leen te maasam teel a baa di waxtaanam lool moo di ban xaasam soxna jaara moo ban géej mbambulaan mu naa walwal dégg too bi kenn ku mar mbaa ku gantu day bañ a wal waaye wal mi dem na fu ne ngan di tee ba day gën na leen ña nangoog ña gàntu du tee fépp fépp la yi dara leen ku yabu teex ku yabu bañ bàq baa ngi kenn terewul ñi gëm dañuy teex ndax ngan di tee bu fawu mu wal jeeg ngeen wolof new daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel bamba moo di tee ba ñu tax daay di tàkk bàyyi kuréel dogan tee ba daay di sax bay jëfal di bàyyi kuréel kuréel doon te mooy ñey ñax daay tàkk def ko kuréel ñax gën càll ba sax gaay du tàkk def ko kuréel kuréel amoon ba ti xol doo ne maa di kuréel kuréel xam na mu doon kon mu yuux naa wererer waaye xam-xam jafe na ndax wala bëtam dafa jër soxna jaara mii war naa tax jigéen dafa xaadam moom ki nangu woon xaadam te si gël kalmaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel si dee mu di yaaram sama jaaree mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox jigéen mu di di yaaram sama jaaree mi li mu am sax jigéen mënu waaye nangu